salaamaaleykum salaamaaleykum eh? ñu ngi leen di ziar kenn ku si nekk sa tur ak sant di leen jégaluwaat un tout petit peu retard bi ñu def de vingt minutes et tout tey nag ñëwaat nañ ci seen émission kaa bi eh? di xeexal Sénégal doon ay sooja pour Sénégal ndeem yàlla suñu borom moo ne bu la dara naqaree war nga ko mën a dem xeexee ak sa loxo soo ko mënul dindee ak sa loxo nga dem wax ba mu dañ. soo mënul wax ba mu deñ nga toog naqar la ko soxal mais comme ñun yàlla may nañu ñu mën a wax donc euh, dañuy wax rek euh, di fàttali ni émission bi defuñu ko ngir ñun defuñu ko ngir yokk kenn defuñu ko ngir wàññi kenn dañ koy def ngir conscientiser dañ koy def ngir man par exemple ngaaka bi ma doonoon am na ñu ko doon ba tey ñu mën a yeewoondoo ñun ñëpp ngir génération yii di ñëw mooy suñu doom yeeg yooyu parce que lu si bëri nit ki bu si duggee mañam moo ko si dugal ak complexe donc euh, te damay wax ak sama doom yi li leen wax yéen fa ngeen jëm man fa laa jóge moo tax ma yërëm leen donc suñu rakk yi ñoom fii ñu jëm ñun jóge nañ fa ñoom lañ fay fekk ñun ñoo ko fa bàyyi donc da da ngay am envie ñeewantal si ñoom boo xamante ni da ngay bëgg wax ak ñoom la fa xew si kaw loolu dañu leen a ñëwaatal ci suñu émission cas bi gëjoon na fi nag ah pour des raisons un peu personnelles et tout mais ñaanal leen ñu incha allah ñu gën a nekk soldaaru Sénégal di gën a xeex ngir Sénégal di conscientiser suñu jeunes frères yi bu baax et puis nag ku am cas bu la naqari boo nga xamante ni danga ko bëgg a traité bon numéro télé bi dinañ ko affiché léegi après ngeen envoyé ci WhatsApp bi seen ay kaa xam nga ñu traité ko mais nag pas ay affaire da yàq nit wala yooyu noonu luy defar nit lañ wax lu la dal nga bañ mu dal nit ku am cas pour ay affaire de yàq nit wala yëfu yëfu mala yooyu nga yemale ko sa bopp ñun defuñu loolu si kaw loolu bu ñu leen ziaree ba pare dañ leen indiloon tey benn affaire bu ñu bu ñu naqari lool te tiital ñu nag. te kum tiitalul dama yaakaar ni wéroo muy benn xeetu sinébar bu tudd couche man nag dama doon seetaan TikTok bu ma ko doon gis dama doon yaakaar ni mi ngi yam États-Unis maa ngi yaakaaroon ni mi ngi yam ay yeneen i dëkk ak yooyu mais loolu waxi tubaab la mooy l'enfer c'est les autres des fois da ngay am looy redouter ba mu ne ñëw daanu sa kaw te mieux vaut prévenir que guérir dama leen di indil man sama àdduna ba ma dalee dox yàgg na gis naa lu ne mais bii nii daf ma tiital muy couche yaakaaroon naa ne nag amul Sénégal Gambie la yam ak Guinée gis naa gine mu fees fa dell gis naa Gambie ñuy jooytu mu am ay dee ma yaakaaroon ne amul Sénégal wallahi bi may def émission bi di def ay enquête dama yaakaaroon ne amul Sénégal euh, bañ mu dugg Sénégal comme que mi ngi Gambie te lu xew Gambie xew Sénégal ndax ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi am na sax ñu naan Gambie mu ngi ci biir Sénégal moo tax ma jugoon pour di si wax far yàlla bi may def enquête bi ñu xamal ma ni mu ngi si si dëkk bi fees fi dell mooy couche couche nag benn drogue la bu bees avant dara avant ñuy tardé wala yooyu noonu dama leen di won un tout petit peu quelques éléments won leen euh, benn wala ñaari nit bu jël couche naka la koy def après ñu continuer waxtaan bi bu ngeen xoolee bu dee yéen a ngi may seetaan bu baax kii ngeen di xool <laughs> couche la jël j'ai envie de rire xaw ma de pleurer sax en fait wala pleurer de riir hein couche la jël instant yi mën naa ne la ameetul boppam couche muy lu doy waar barke alxuraanu karim muy lu gaaw ci yàq doomu aadama muy lu gaaw ci yàq avenir xoolal xoolal bu baax ñi li ñuy dund nga ko daan seetaan di ko gis Amérique naan ah non américains yi dañ koy def rek nangam nangam ndekete def dañ ko defar pour sànniñu ko ñun Afrique mooy le le combat rek que Babylone mène vers nous les Africains dañuy créer benn affaire sànni ñu ko parce que xam nañ ne ñoom ñoo gën a vulnérable ñun ñoo gën a pauvre ñun ñoo gën a susceptible laal yenn affaire yi regardez-moi ça kii sa ra boo ma mënee indiwaatal élément boobu ñuy mbej kook nga xam ne nit ñëw na fekk la mbej la sax xoolal xoolal lii mbéj mais mënoo réagir aucun réaction mënoo am benn reacting you know mbéj tar mais mënoo réagir regarde-moi xanaa drogue da koy jël pour gën a gaaw gën a xalaat wala gën a lii wala mais regarde-moi ça loo xam ne dafa anesthésier tout les cellules de tonkor corps xoolal ma lii te bu dee yéen ak ñuy topp partager leen bu baax a baax partager leen bu baax a baax a baax a baax te ngeen waajal parce que yii ñëw moo gën a xotteeku yi ah am na sax yoo xam ne bëgguñu woon koo teg parce que am na sax koo xam ne dafa taxaw jël ko di rendi boppam taxaw xam nga taxaw nii yor paaka di rendi boppam rendi di rendi di stock nii munuñu ko teg munuñu ko jàllale fii mais ñi ko jël nii lañuy ñuy mel ci kaw loolu dama bëggoon ñu seetaan waa Freetown mooy fii la ci Afrique di Sierra woon waa Freetown nga xam ne ñépp jiiñ nañ leen ni foofa lay jóge waa Freetown épidémie la fa doon ñu ni sax ñoom dañuy dem bay gas ay néew dañuy gas ay néew pour kii ko waaye balaa sax ñuy dem Freetown balaa ñuy dem Freetown c'est bien ah moo sama réalisateur jinne la balaa ñuy dem Freetown comme que waa bi ñoom dafa am tur bu tuddee couche waa bi sama mbokk yi dafa am tur bu ñu tuddee couche muy ginaa baas léegi dama leen di seetaanloo élément bi bu pare bu ma paree ñëw wax leen kan mooy Guina Basse tegal ma élément bii nii ñu dégloondoo ko ñëpp ñu teewlu ko te ñu. waaw simple yoo nga ne da nga am loo war a adresse bi ak UFC. gouvernement bi yéen moom naa leen wax lu ma leen war a wax waaye UFC déglu leen ma. Guina Basse boo leen a tuux nii ne ma Guina Basse doomi jàmbur mu ñu wonee si daw daw bi yëpp léegi xam na ne Gambia den mun daw. Onasanga because Gambia xam na ne léegi mun nañ football already because ñu ngi def AFCON ñu ngi def lu def Gina Bass bi bu leen jël doomi jàmbur ngeen koo tuddee lu bon Gina Bass boole naa tuuti noonu nekk lu baax it's a bad thing yoon Leone xam nga ñaara ne ñoo ne gàddi dee boobu noonu kuma wéedi nga saaj ko Sierra yoon Gina Bass da ngaa cappa lu bari Onasanga booy da gis ay cappe sa booy Gina Bass booy ah. nukama nukama waaw bu ngeen déggee mu ni ngeen jël doomu jàmbur tuddee ko ginaabaas tuddee ko lu bon ngeen lii ngeen di boo déggee mu ne li ngeen di use use use la bëgg wax li ngeen di utiliser mu bon ngeen jël doomu jàmbur tuddee ko ko ginaa baas benn atlet bu dëkk Gambie la atlet bu mën a daw ku mën a daw ki dàq daw si Gambie lañ tuddee drogue bi mooy Gina baas tey boo ko doon wër boo naan couche sax mooy couche mooy mooy tur bi gën a siiw waaye ginaa baas la ko waa Gambie di woowee te Gambie temps yi dañ cee loru sonn ci torop torop torop torop ba am ci ay dese dese ay nit yu ci gaañu ku si mel ni buubaa ñu koy jaale nag ah ay mbokkam ñi nga xamante ni ñoo ngi nekkee côté Gambia sunu mbokk yi foofu di jaale buubaa di jaale ay xaritam di mastawu ñëpp affaire yooyu noonu dañ demoon banaan ay lii ko rey lee moo ko rey ndekete booy bi couche la jël àttanu ko ci la wàcc ab liggéey moom bu defee dañuy dem xoolaat beneen élément biir Gambia sawaay euh, raa soo ma mënee jox euh, élément wu buubaa bi wala nga jox ma élément wu booy dealer yi waaw lii boo ko seetaanee épidémie la Freetown lii mooy épidémie bi am Freetown Freetown nag Africa la Africa bii ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay tubaab bi moo ñëw indi balkanisation lii ñu tracé wu rek mais lu xew fii suba day xew fee Freetown nag ñoom nekkatuñ naan ay nañ ko kii wala yooyu de ñoom dañoo tollu ci épidémie épidémie nañ dem ñu seetaan ñoom ni ñu koy mettitloo ak ni leen ëppee ay loxo nga xam ne ñu ci woon a jóg ba mu toll leen fii tey ni mu leen demee ba ëpp leen ay loxo dëggantaan Freetown man may bañ ñu toll foofa xoolal ñoom fi ñu toll nañ xool élément bi su mënee su baaxee ñu dem bu gën. In Sierra Leone, a new drug is turning young people into zombies. They call it kush. Dried leaves mixed with a cocktail of chemicals. In just three years, it's taken over. push take it to another world another world where you don know yourself. say na something wey wey mix with demonic something you dey see the company die dem still dey take am. freetown home to a million people. It's a vibrant trading hub famous for its beaches, but below the surface, The city is suffering. An economic crisis is pushing people into poverty. At 20p a joint, Kush offers a cheap but temporary escape. Every day, the drug consigns more lives to the dump site. I got no respect in the street, no, one care about me, no family, no friend. Fathers abandon me, mothers abandon me, nobody wants to know about me because of this push. Al is He got hooked after a friend gave him a joint two years ago. I went to the ghetto and buy another one and smoke it. You oh, so sweet. Can I feel it more? That, that's how it started. now an addict, you know. But I'm trying to quit it, and I will quit it by the, by of God. This not me. This not real me. My goal was to be a doctor. But not this, doctor. This I don't know, this is another man. fears the epidemic could destabilize the entire country. It's a big crisis given the fact that uh, the youthful population that should be vibrant, should be working or maybe going to universities to plan. waaw gis nga ñii dañoo toll ci épidémie dañoo toll ci ubbi ay centre pour xale yi di leen fa mën a teg ñuy mën a nelaw et puis bu dee yéen a ngi seetaan yéen ñi ñu doog a rejoindre ñu ngeen xam ne seen mbokk la seen xarit Khadim Diallo te nag dinaa leen jox ay preuve yu leer ne Kouch mi ngi biir Sénégal bu baax a baax a baax a baax toog leen jusqu'à la fin dinaa leen indil waxtaan man ak koo xamante ni xam na si lu bëri suñu benn frère gambien bu nga xamante ni ni ma ko naqarluwee moom noonu la ko naqarluwee rafetlu bu baax xeex bi si nii cëppeeluñ kenn ba maan ñun cëppeeluñu kenn amuñu jot boobu noonu sax te ku ku ñu xam-xam ne nañ guerre yu si bëree bëree bëree bëri mais dafa loo xamante ne dafa ëpp sa doom wala sa rak doo bëgg mu jaar si foo jaar doo bëgg sax mu xam boobu yoon donc du coup àdduna bi yàquwul parce que ñi yàq àdduna bi ñoo ngi yàq àdduna bi mais ñi toog di seetaan ñi yàq àdduna bi ñu yàq àdduna bi ñooñu la te waa no sama yoon neew kii dafa bëri wax non nice nañ wax xëy na bu ñu waxee yenn xale yi dinañ xam ne tubaab bi moo ko créé pour yàq Africa mhm. loolu moo xew su loolu jaalee maa ngi leen doon wax sànq ne am na benn Gambien ñu koy jaale bu baax nag di ko ñaanal bu baax ñu doon werante ndax couche moo ko rey booy buubaa wala couche rey ko preuve que couche moo ko rey moo ngi nii. un stupéfiant que, que, nous connaissons actuellement dans la capitale, la couche qu'on appelle tous couche. Donc euh, nous savons que ça fait ravage dans la capitale. Donc euh, il Je ne sais pas, donc, euh, à, à, à, maintes reprises, selon les explications, il a consommé cela à maintes reprises, donc du coup, ça fait des réactions. Et ça, ça a suscité euh, au gonflement de sa langue. Et puis, euh, du coup, ça, à travers ça, ça saignait beaucoup maintenant. Donc, euh, il était là, au sol, les gens ne faisaient que courir. Personne eh, n'a voulu, prendre la victime au fait en charge afin que réellement qu'il puisse ah, venir à l'hôpital. Donc, il a donc ñu doon werante sunu mbokk boobu buuba gambien boobu est-ce que couche moo ko rey wala du couche donc voilà ñu ko jege ñoo nekk di leeral nii que couche effectivement moo ko rey mu ngi wax ci élément bi ne daf ko jël ay yoon yoon bi mu ko jëlee dafa amee woon hémorragie yi làmmiñ bi moo doon sotti deret ci la wàcc liggéey donc du coup am nañu élément boo xamante ni ay xaritu buuba ay copain am waa koñam ñu mu doon fréquenté ñoo toog di regretter di di mettitlu di wax ñoom aussi euh, fiñ si jaar parce que tamit bon ak mbaax mu ngi si bëtu kii xool des fois nit ki dadul xam umpale mooy tax mu dem dugal xale boo ko bàyyee mu dem ci sondeel ba dugal loxoom si taal bi dafa xamul rek mais bu si lakkee benn yoon wala mu gis ko ci lakk ne buy sama ndey dina fexe ba du ci dugal loxoom loolu mooy objectif biñ nekkee nii donc su baaxee dinaa leen won élément wu waaw bu ngeen xoolee bu baax image bi couche ni lay mel benn poudre lay doon en général bu jaune poussin parce que yaxu nit lañ ko defaree yaxu nit bi may def enquête bi ñu ne yaxu nit dama ne loolu loolu c'est exagéré du dëgg waaye nag dama leen di jox aussi preuve que yaxu nit lañ ko defaree ak cocaïne ak ay produits chimiques yuñ ci wis yoo xamante ni xamuñu léegi pour wax leen ni dëggantaan yaxu nit lañ koy defaree déglu ma tubaab bi human bones boo ko déggee ci anglais human bones mooy yaxu nit des os humains human bones déglu leen bu baax Sierra Leone is declaring an emergency after addicts are digging up graves to get high on a drug made from human bones. So for those you don't know, Sierra Leone is on the west coast of Africa, and they're currently facing an epidemic where there's a drug called Kush that's being used all over and manufactured partly by using human bones. This is causing people to come rob graves and steal the bones of buried people. Apparently, the drug is pretty just requires <laughs> one specific ingredient that requires people to steal bones from old cemeteries, in which case the government has actually had to beef up security at cemeteries to stop this problem. and this drug creates sort of a hypnotic high, as one would describe. They said this drug first started being produced around six years ago in their country, and the epidemic of users and the increase in grave robberies has skyrocketed since then. Doctors are also seeing an increase of around uh, of deaths due to organ failures, which is a direct result of this drug use. dégloo noonu ngeen gis élément bi bu ngeen xoolee almeer yi ak moom lu muy expliquer mooy drogue bi drogue bu bees la buñ defaree yaxu nit def ci cocaïne ak quelque produit chimique moom sax dugg na ci yenn détails yi ba expliquer ni euh, quarante pour cent des jeunes sont en train de mourir à cause de cette drogue mais bu ngeen xoolee bu baax carte bi carte bi moom ak njëkk moom a njëkk interpellé man mooy carte bi c'est l'Afrique de l'Ouest c'est la Guinée les Guinée mooy suñu mbokk yi c'est la Gambie suñu mbokk yi Mauritanie le Sénégal ñi ñii bu ngeen xoolee carte bi man loolu moom ma njëkk a interpellé en fait tubaab bi indi na esclavage jekki-jekki abolir ko indi esclavage mental jekki-jekki gars yi yeewu sénégalais yi léegi dañoo yeewu africain yi dañoo yeewu ñu ngi si beneen Sénégal ñu ngi ci beneen Africa ñu indil ñu ay xeetu Sénébar yi nga xamante ni wax dëgg yàlla warta tudd sineebar poison la war a tudd man xam naa sineebar de xam naa sineebar xam naa ne nattu day dal ku nekk waaye nag yenn xeetu sineebar yi man pour man poison la tu peux aller te mettre une balle directement quoi moo gënoon gaaw quoi man pour man ci sama xalaat donc du kou ah, euh, buubaa bi gaañu woon aussi ah, waaw boo boo leen xoolee aussi euh, buubaa bi gaañu woon gaam bi ay xaritam ay mboqam foofu ay copains ah, ñu fa nekkoon ñoom ñëpp am nañ ay témoignages yuñ def yoo xam ne dafa am lu ñuy nettali lu duma leen ko nettali damay bàyyi ñun ñëpp ñu dem dégloondoo leen ñoom comment ça s'est passé. and seek a new direction. former impact cocaine had on young people. man sax dama ko doon jaay mosuma ko tux nag waaw because man dama gisoon gars di ko jaay muy jar. waa nit ñi di ko over jënd affaire taay bi dem na ba jaratul sax waaw ñun tam ñu dugg si man tam ma ko jaay sax waaw waaye waaw affaire yu fajo bii nag moom soo ko gisee moom ah nekkul lu ñu gënal de wala nekkul suñu aim tamit waaw every time xam nga ñeneen waaye man saa su nekk maa ngi ñaan yàlla nu ma si génnee waaw xam naa ne keneen ak keneen tamit noonu te booy tamit soo waxee lu ñu la dee mooy liggéey amul fii amuloo dara loo mën a liggéey nga am waaw fajare nga mën a def nga am. Chicago, he was drawn to the drug trade by its profitability. Witnessing the death of his friend compelled him his peers to abandon both the trade and the consumption of drugs. bu ñu amee three days tamit bu lee xapp ne si buuba after nag foofu la boo yëpp jaar nag waa ku nekk nag ne moom bay na kuus àdduna àllaaxira waaw ba pare ñu ne tamit kenn du ko fi jaayati waa kenn du ko fi tux kenn du ko fi jaay waaw te depuis boobu léegi moom yàlla xam na ne kenn tuxatu ko fii kenn jaayatu ko fii. te man xam naa ne tam booy yu bàyyi nañ ko. Another former dealer and consumer highlighted how unemployment pushed them into drug trade. However, the tragic death of their fellow youth has led them to take a new role, serving as community enforcers against drug use, ensuring that their community abides by their new commitment. ñun jaay nañ leen ko waaye ca ba nga depuis suñu accident accident bi dal fii jaayatuñ ku asifi xaalis pour ñu jaay ko poussé ñu wala nga dem soo demutee ñu dóor la def na ko fi ñu bëri the big problem won't happen. Suleiman Jani celebrated as a hero for rescuing over three young men after their consumed coups. Despite suffering from severe bite from the victims, he shares his experience of saving lives and the challenges he faced. Last time ku ma njëkk a jàppale di club bi moom dafa dem ata man fi dem naa leen njëkk a press fii tiit ma ko téye fii ata si laa ma bëtt man du dee daf lay tëj gémmiñam bi moom du yore nga ibi gémmiñam bi so dama ma presse ma dugal sama bi mu mata ma dugal beneen loxo bi ma dem téye lamañ bi téye ko noonu noonu surtout laa lay jël ndox ma sotti bi parce moo bi parce que lamañ bi daf lay bam nii moom bañul la woon man moo téye man dama mata mata yu métti sax waaye dama téye ma xam ne kon bakkan laa nekk di si fan so surtout laa diw ak moom spoke to a group of young people who are now actively engaged in community outreach program to educate others about the dangers of course. Alpha MK Lo, the president of Nyomi Youth, discussed the objective of their community engagement. The is to ensure that Kus is kicked out of Nyomi and by extension the entire country. We have started making effort and success have been registered so far because this ghetto that we are right now, um, they've also taken it upon themselves from now on that nobody will sell coups here. And whoever that comes to buy coups, if you're not careful, they will deal with you. So it's like community policing is coming to be lively within Lower Nyomi, particularly within the ghettos. So that, is, a massive success. Recent report for and seek a new direction. Former drop. su ngeen dégloo élément boobu ñuy jaalewaat bu baax buuba booy buuba ah booy bu jantal Euh, copain bi mi ngi wax ne bi mu amee attaque bi jéem na dindi làmmiñ bi mais bu mu dindee làmmiñ bi daf ko màtt une première fois mu dindi loxoom mu dindiwaat làmmiñ bi une deuxième fois mu màttaat ko une deuxième fois bi mu ko màttaatee donc nee na xamatul woon lu muy def si la ko bàyyi xam nga si la ko yàlla si la yàlla defee li gën mu xam nga moom si bakkanam et tout yal na ko yàlla xare àjjana jégal ko ay baakaaram il n'a rien fait ah c'est que ay jeunes ay jeunes lañ xamuñu peut-être am na num doon demee le milieu détermine l'individu bu ja am na ay milieu yu mu doon jaar ñu xamal ko ne ah feenee boo fa jaaree pont bi eggul da ngay wadd du dem quoi du coup waaw noonu la affaire yi demee couche moo nekk nii mais ñu bëri dañ naan instant bi waaye mais kii lan la si expliquer nangam nangam mais li tax ma si expliquer mooy man sénégalais la te à la fin de l'émission je vais vous donner une preuve très formelle très très formel que mi ngi Sénégal mi ngi biir Sénégal difi fi lëmbe nag bu baax escorte chez vous partagez au max pour sauver le maximum de gens surtout de jeunes parce que ñun moom mooy loolu ñu si bari dañoo complexé ma ñam moo ñu rey ma ñam baatu ma ñam dafa waroon a génn ci dictionnaire bi donc du coup comme on est mal barré s'il vous plaît et restez jusqu'à la fin ma wan leen preuve tangible que mi ngi Sénégal bu baax fii biir Sénégal donc du coup suñ jógee si loolu sama réalisateur su baaxee su gënee cool ñu dem ñu déglu suñu benn sœur boo xam ne moom Sierra woon la dëkk kii Freetonienne la Freetown la dëkk Sierra Leone la dëkk waaye instant mu ngi biir Gambia mi ngi tudd Cecilia di koo xamante ni dafa am ay conseils yu muy joxe am lu ko ci leer nañ ko déglu bu baax déglu ko ak xel après ñu ñëw ma jox leen élément wu koo xamante ni moom moo siy dund nekk si biir xam lépp am ci ay regret te buggul benn xale jaar fu mu jaar muy ko baax di suñu benn bureau bu dëkk Gambia xam ne Gambia mooy Sénégal mu jàpp bu baax nag ci émission bi ak réalisation bi ak naka la ñuy def ba defar ko normal ba mën a conscientiser suñ kii léegi balaa ñuy dem ci Gambien bi mu expliquer ñu nañ déglu kii di Cécilia Camara su baaxee ñu dem di ko jaay suñ youth si fii nii ñoom tam bokk nañ si lool so dama waxoon ne foog ma waxal nit ñi because sometimes daf dee am lu dee xew si dëkk bi te kenn du dee wax affaire yi yooyu noonu so um, balaa maa continuer di wax affaire yi couche bi ma introduce ma boppa di leen yëgal ne man maa tudda Cecilia Camara man Freetown laa jóge man um, Freetonian laa bu dëkk Gambia fii nii understand ngeen waaye daal dama gis ne dafa am luy jógee Freetown ñuy ko indi fii nii si dëkk bi di ko jaay youths yi ñuy ko uh, foog naa dañ ko dee tux ñuy ko tux di leen rëy di leen sonal di tax ñuy duga si yoo xam ne waruñu see duga man daal lu ma bëggoon a wax fii nii Gambia moo nekk ne man su ma daan wax affaire yi Gambia dinaa di mun a wax ne Gambia nekk na réew boo xam ne jaama rek lañ xam jàmm lañ xam ba pare affaire yi crime daal amul fii fii nii mun ngaa téye sa xaalis sax di dox si diggi guddi kenn du la sonal kenn du la xatal kenn du ñëw sa néeg sonal la si sa diggi nelaw di la ee pour saaca sa bagage ak yooyu noonu bot léegi affaire bi dafa wëcceeku wëcceeku tey xam naa ne li li tax yii nii di xew si dëkk bii nii moo nekk am bagage yu ñoo indi fii nii di jaay suñu youth yi ñuy koo jël xam nga parce que soo jëlee loo xam ne daf laa intoxicate daf laa dugal si loo xam ne danga koo def te teyuloo ko doo di ànd ak sa xel parce que couche bi loolu la dee def soo ko tuuxee doo di xam sa boppa doo di xam fan nga nekka mun ngaa taxaw ñii sax di nelaw fekk yaa ngi taxaw di nelaw si loo xam ne daal dangeen naa jël seen xaalis di ko jëndee man ma dee woon ne loo xam ne dafa addictif nekkut lu wa lu nit war a bokka loo addict waruloo see bokka parce que kush nekk na loo xam ne soo ko jëlee jëndee am na ñu ko dee jënd si booy si di ko tux doo mun a lekka doo mun a nekka si dara soo foo nekk sa doo xam sa boppa dangaa taxaw rek di nelaw ba pare danga dee liyu dégg naa doo dee sangu def la dee jox góom gaañu soo amee gaañu bu ndaw te nga nekk koo xam ne danga dee jël couche du dee musa wér gaañu bi daal noonu laay nekk di yokku muy xeeñ sax yi di si génna yooyu yëpp gis nañ ko si couche su fekkee waxuñ leen ko parce que xam naa ne ñu leen ko dee jaay duñ leen dee wax after effects yi fu mu nekk nii yéen a ngi koo start soreyangu leen si su xamaangu leen lan la couche dee def looloo tax ma ne xar ma ñëwtee ma yëgal leen man Freetown yan laa maa ngi jóge Freetown January 2024 bii nii January bu passé nii maa ngi woon Freetown gis naa lan la couche dee def nit ñi su looloo tax ma ne xaram ma ñëw di leen yëgal ba pare xaw ma nag wax nañ leen ne couche dañ ko dee mun a jaxase ak yaxi niiw su comme nit koo xam ku doon dunda mu gaañu mu dee ñu jël ko dem suul ko mun nañ dem suuli nit ki oo jël yaxam yi ba pare moom la gay dee grain ñu jaxase ak couche bi jaxase ko ak couche bi ñoon di lañ ko jaay ngeen di ko tux xam nga loolu su eggee si sa bopp bi def la confuse léegi dëkk bi dafa bari dof bi nga xam ne foo dox si dëkk bi nga gis dof nit ñi di dox nii xamuñ sax si luñ nekk lii yépp li ko waral moo nekk drogue yi nekk di ñëw si dëkk bi daw na yaram lool daw na yaram parce que xam naa ne benn yaay du jur doomam ba pare amee ko ba mag mu war a ñëw di ko toppatoo mu intoon gis ko muy dox ci mbedd bi dof du sangu tilim di liyu di dox ci mbedd bi fu ko nelaw fekk daal foofu la moo tëdda di nelaw yeneen dafaa taxaw sax mu naam dafaa am pour rot mais bi yeneen nga am gaañu si parce soo soo nekkee di dox ngay nelaw nga daanu sa bopp bi fal na moo dal doo xam fu sa bopp bi dal nga gaañu gaañu fa ba pare gaañu boobu noonu dégg naa du dee wér du dee wér because of couche bi nga bi nekk ci sa système bi ndax loolu war nañu parce que man lu maa wax moo nekk ne foog naa su ma amee àndandoor ma am ku ma àndal su ma xarit oo su ma àndi jaama daal yow soo ma introduce dara naa gis effect bu loolu noonu li nga ma bëgg a introduce maa gis effect bi si yow ma gis ne daal am na njëriñ understand nga indil na ma progress dinaa si dugga soo ma waxee ne ma ah xaw ma na xaw ma na yëg nga ne léegi sorance dafa cher soo ko jëndee si deex bi nga indi ko fii di ko jaay di si am profit bu bari mun see dimbale sa boppam dimbale sa waajur boobu soo ma ko waxee fan naa dinaa si mun a dugga parce que xam naa ne su ma duggee si business boo ma introduce noonu dina ma dimbale ma mun a toppatoo suma waajur dinaa si dugga parce que fal naa soo ma introduce loo xam ne dafa progressive dinaa si dugga waaye yow soo ñëwee ma gis la yaa ngi raaga yaa ngi tilim ñaa ngi bon am loo fooy dëkka am loo looy lekka amuloo liggéey ba pare nga ñëw ne ma man de si lii laa nekka doo si dugga dinaa la laajte yow ndax yow danga ma bugga parce que ku la bugga def laa dugal si loo xam ne def laa yóbbu si kanam waaye si koo xam ne soo ko gisee moom laay fam dara baaxut si mu ñëw di la wax ne kaay nga kaay ma dugal la si lu si lu ma nekka fon naa man war naa mun a am xel boobu ne lii nii su ma si duggee du ma njëriñ def maa yaaxal soo yéen fritoniens yi dañoo ñëw fii ñu indil leen loo xam ne daf baaxut ñoom gis nañ naka la nekk di rëy seen waajur yi ak seen mbokk yi dëkk ba ñu indi ko fii nii introduce leen ko yéen tam ngeen nekk di si jël di si dundee ndax loolu war nañu yow ku nekk ak sa five senses man dinaa toog nit ñoo ne ma tuuxal si eh, mosal si lii maa si maa koo def maa see duga loo xam ne man xam naa ne def maa ñëw yaaxal maa see duga xam ma nag wax nañ leen ne ñetti fan si gannaaw dañ def mass burial pour ñuy gaañu ci couche bi nii comme ñuy dee si bi bii Freetown dañ am because ñeene yi dañ dee génn seen kër yi su kenn du dee xam seen waajur yi duñ dee xam fan lañ nekk ñu nekk si mbeeda bi am na ñoo xam ne comme kuwaare yi fuñ dee tuur mbalit foofu la gaay dee dëkka yow couche nii la la di def doo mun a dëkka sa si fu set bugguloo dara lu set yow lu tilim rek ngay bugga lu bon rek ngay buggal sa boppa so ñoom ñoo dëkka si kuwaare yii nii so foofu lañ dee dëkka ba dee nag xam nga suñ deeyee government bi du dee xam seen waajur pour ñoom ñu yóbbu leen si seen waajur yi ñu suul leen so dañ leen dee jël yóbbu leen si mortuaire yi after some time suñ ndekkee si mortuaire yi bébé space lañ soxla pour ñoo xam ne am nañ ay famille ñuy dee ñu war leen a yóbbu si mortuaire bi denca leen so duñ suñ amutee space indi en government bi liñ dee def dem gas paax bu mag bu rëy jël leen ñoom ñëpp dem dugal leen si pax boobu noonu suul leen mass burial moom lañ di wax mass burial loolu am nañ ko about three days ago Freetown suul am ah, ah, ah, ñu couche bi di rey so léegi ñoom ñu indi ko fii nii yéen ngeen ndekka fii nii ànd ak yi di ko tux ndax loolu war nañu foog ma ne loolu war nañu de ba pare ñun tamit ñun waajur yi parents yi yow soo gisee sa doom door na di dox am uh, um, steps yoo xam ne mosuloo ko bàyyi xel muy doxe noonu nga jóg si nga jóg si am nañ fii ay drug squad waaye sutura bi moo fi uppa bi nga xam ne sa doom dafa def loo xam ne sax warut waaye bi ko sof yan koo sutura bugguloo keneen ak keneen sa dëkkandoor yi xam ne sa doom bi si lii la nekk nga ko sutura foofu la moo jógee def ko si sa kër mais bi boole si rakkaam yi op op famille mu jógee fa dem si dëkkandoor bi su fekkee am na booy bu fa dëkka tamit mu introduce ko si noonu la affaire bi day spreadé ñëpp ñu ko noppee di sutura di sutura suñu waajur di sutura sutura xale yi suñ suñ suñ njaboot ba muy spread di spread ba pare di yëgal am ah, ah, ah, force si responsible si drogue squad si nii ñu gën a bàyyi suñu xel suñ génnee jàpp xale yi ñu xam ne ñu war a def ñu def ko ñu bàyyi tamit suñ siyee nit su la mayee benn hundred dalasis rek nga bàyyi ko mu dem mu dugaat si biddika bi di gën a yaaxu di gën a introduce nit ñi ba pare di gën a ànd ak ñu bon yi di dem di daaji këri jàmbur yi di fa sàcca si loo xam ne ni ki liggéey na laay fam yépp def ko si këram pour confortam ñoom bugg ñoo liggéey bugg a jël couche rek tax na ñu dem sàcca kooku noonu soonal ko suñ ko munee gaañ sax pour jot si alelam dinañ ko def dinañ ko def pour rek jot si couche bi parce que dégg na loo xam ne la soo ko staté mënuloo ko bàyyi soo du mun a liggéey pour am ko lu la ne rëy nit na la pour nga am njëgi couche man daal lii laa ñëwoon tey pour am ah, yëgal askan yi Gambie fii nii am ah, suma mbokk yi di seetaan ne nañ jóg ci affaire yi bi nañ bañ su la nit buggee introduire su loo xam ne du la njëriñu nga ne ko baalal ma te soo ko munee boole ñu jàpp ko ñu génne ko ci mbedda bi nga boole ko thank you beaucoup merci beaucoup ñun ñëpp ñoo ko déggandoo Cécilia di ko sant di ko gërëm xaw ma ndax mu ñuy seetaan ou pas mais en tout cas di ko sant di ko gërëm di ko wax ne soldaar la moom soldaaru Freetown la soldaaru Gambie la soldaaru Africa bi yëpp la ah moom ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm boo leen dégloo bu baax dégg ngeen lu mu wax euh, mooy li nga xamante ni moom laa doon leeral mooy amputation yi ñiy dégg ne couche bi day indi ay amputation lii indi amputation yi mooy soo xasee ba koy use ba mu dugg ci sa cellule yi soo xasee ba am góom xam nga nag dina am ñu koy use naan waaye ñu ngi koy use daluñu mais boo xasee ba mu addict ci yow soo xasee ba am góom du gaaw a wér comme ñi am jabet yàlla na leen yàlla may wér ñoom ñëpp ñi am jabet bokkut ak lii nag mais comme genre damay jël exemple si jabet rek soo demee ba mu egg ci yenn stade yi soo amee góom du gaaw wér dañuy dagg wa tànk wala loxo nettaliwu ma ko kenn ñaanalu ma ko kenn ah loolu couche da koy def soo amee góom dégg nga ko mu ni dafay xelli di xeeñ di continuer di xelli et puis ñi ñuy seetaan ñu ngi koy rafetlu di leen jaarewaat bu baax di leen wax ni mun ngeen intervenir nag ah ci seen émission moo tax dañ bëgg a yaatal waxtaanee ko critiquente conseillente moo tax mun ngeen réagir à tout moment ah, au 77 810 90 90 77 810 90 90 parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañ xëy na man ñu fi toog nii am na ñu ma gën a xam ñu may seetaan am na ñoo xamante ni peut-être ñoo ma ëpp euh, pédagogie ci yedd nit mu am fu mu déggee walla mu am fu mu xoolee ñu ngi ñuy seetaan donc du coup ku mu naqari comme man vraiment tu peux réagir au 77 810 90 90 donc du coup bu ñu jàllee si loolu. dañuy dem directement ci sama invité du jour ki nga xam ne man moom laa invité ma séq ak moom nag waxtaan bu yaatu et puis nee naa leen ngeen gën a partager ngeen gën a gën a gën a partager parce que à la fin de l'émission dinaa leen jox preuve que am na Sénégal wallahi al azim bi may def émission bi au début dama ko doon def pour ñàkk Sénégal maanaam pour jéem a dénoncer ci sama côté man quoi pour mu bañ a dugg Sénégal far yàlla ci biir enquête yi ma doon def noonu ñu xamal ma ne fii la Bodiou am na Sénégal mi ngi commencé ñëw bu baax a baax a baax a baax donc du coup loolu waxuma la tiital mais c'est flippant bu ñu jógee si loolu dañuy dem introduir sama sama invité sama invité nag moom jeune la xam nga jeune soo ko nekkee da ngay dox da ngay nekk ci street life da ngay nekk si mbedd bi da ngay découvrir da ngay xam lii xam lii am foo toll muy tolluwaay am loo romb comprendre nga moom nag yàlla dimbali na ko leer laay wax yàlla dimbali na ko teel koo gindi mu teel a xam ne lii du lu baax sunu mbokk gambien boobu du ma tudd turam comme ni ma ko daan defee ci samay émission yu bëri du ma tudd turam ah sama source la mais moom laay introduire moom nag ba ma ko introduire waxtaan wu yaatu lañ seq waxtaan wi mooy ba ma ko nuyoo ba pare dama ko laaj parce que li tax ma laaj ko mooy comme que Sénégal ak Gambie benn bopp la lu am Sénégal day am Gambie mi ngi mel ni ñaar ñu jëlloo kër soo yoree mbalit te nangoo koo tuur yi man sama kër léegi mu tilim parce que fa koy xëpp et puis benn bopp la quoi kenn mënu koo xar ñaar lu xew bi rek wala ñu ndekkee ko bi rek dinañ ko añee Sénégal wala ñu reeree si ko fi day yàgg rek jalu muus lay doon mais yàgg-yàgg da ko fa fekk incha allah léegi moo tax ba ma ko laajee dama ne ko dafa am drogue bu ma dégg ne mi ngi tudd kush bu ñëw Gambia est loolu dëgg la ba ma kolaajee lii la ma tontu bu ngeen dégloo ñu déglu ko attentivement dellu si. maaleykum salaam bro man laa delloo waat ci yar bu baax baax xam nga di la waatee sa waat yow tamit waaw di la wax sa question bi am na sens trop am na solo because li nga laajte dëgg la am na drogue bu génn kuus la tudda waaw ñun Gambie fii ñu gi ko waxee jënabaas waaw soo léegi da gis ne fii sax bu fi accès xam naa yàgg tuuti nag waaw yàgg na tuuti te garaaw na trop waaw. déggandoo ci question boobu ma ko laaj ndax couche am na nee na ma couche am na ñoom ñoo ngi koy woowee ginaa baas waaye boobu mu ngi fekkoon ci début ba la maa ngi doon def ay enquête ma laaj ko ne ko lu tax yéen waa Gambia ngeen jël benn doomu jàmbur ku sell koo xam ne athlète la bu leen yàgg a teewal ngeen tuddee ko ko ginaa baas pourquoi ngeen tuddee ko ginnaaw baas ba ma ko laajee lu tax ngeen tuddee ko ginaa baas lii la ma tontu. waaye bro eh, right am na kañ waaw kus nag la ñun Gambien yi Jina Baas lañ ko def wax soo déggal lu ñu ko Jina Baas Jina dafa am benn suñ benn dawkat bu nekk fii nii comme ku daaxa daw Gambie rek benn jigéen la moo leen tuddee moom mooy Jina Baas Jina Baas la tudda soo léegi da nga gis ne drogue bi dafa overla garaaw kus dafa garaaw si boppam. ku safa garaaw moo tax ñu tuddee ko dina baas mu gaawee euh, bu ngeen dégloo bu baax xam naa ni euh, ngeen baal ñu ci langue olof lay làkk waaye olofu Gàmbi lay làkk ngeen baal ñu si loolu nee na boo déggee ñu koy woowee Guinaw baas mooy gaaw bi mu gaaw tout de suite la moom right now nee na gaaw bi mu gaaw moo tax ñu tuddee ko ginnaaw baas di leen fàttale ni mën ngeen a réagir au 77 810 90 90 ngeen intervenir wax la ngeen bëgg a wax xam nga teg ko si si si si si sauver sunu jeunes yi et léegi nee na ginnaaw baas moo dàq daw Gambie athlète la mi ngi mel ni nga ne Ami Mbacke Thiam ngeen baal ma damay joxe exemple rek mi ngi mel ni nga ne Ami Mbacke Thiam ginnaaw baas benn athlète la bu gaaw bu nekk Gambia moo tax ñoom ñu tuddee coach ginnaaw baas nag ba ma ca ba ma ba ma waxee loolu xam nga dama koo laaj couche moom lu ñuy naan la comme sàngara wala comprimé la comme volet wala lu ñuy tux la wala lu ñuy fóon la ba ma ko laajee pour mu yaatal ma leeral ma lii la ma tontu. waaw bro non bro couche kenn du ko dee naan couche dañ ko dee tux kous kenn du ko naan kenn du ko xencu kenn du ko def leneen kuus soo soo gisee ne ñax la benn façon ñax la comme ñaxi jàmba waaye dafa am yeneen ak yeneen luñ ci def waaw. dégg nga mu ni kenn du ko naan <laughs> mu ni dañ koy tux comme yàmba. waaye nee na bokkul ak yàmbaa waaye comme yàmbaa la lu ñuy tux la ma ne ko ah kon comme lu ñuy tux la comme yàmbaa la léegi damaa bëggoon nga wax ma ndax moom ak yàmbaa lu gën a cher ban moo ci gën a cher ak naka lañ koy jëlee ak comment ça se quoi ba ma ko laajee loolu pour leerlu ndax euh, moog yàmbaa bi lan mooy seen différence booy bi lii la ma tontu. because li fi ni boppam la comme ñax yi nii comme ñaxu ak yooyu noonu comme noonu doon tagal nii soo da ngaa gis ne bokkut ak nuñ lay tuxee because kuus hey bro kuus ku ko <laughs> kuus ku ko tuxee comme ni nga tuxee yamba da ngaa dee yee daf laa rey because kuus cofit cofit laa la wala som la cigarette dogit dagit maanaam dagitu cigarette xam nga nga si lu tuuti loolu noonu si kawam nga takka ko kon noonu la dañ ko dee boole cigarette waaye soo ko tuxee comme ni nga tuxee jàmba danga dee mu ne bi ma ko laajee loolu nekkoon nag mook yamba est-ce que benn la ñoo yem daf ne ma ñoo yem ñu ñu koy takkee mu ne ma bii comp nga siy jël boole ko ak cigarette rek def ko si waaye comme que sénégalais yi yéen lu ngeen dugg ma ëpp nee na ku ko si tux comme yamba da ngaa dee waxu gambien la wax da ngaa dee loolu dem si ree ba sonn dangaa ngaa dee xam nga ma pare laaj ko affaire amputation bi mooy li Cécile sunu sœur boobu doon wax affaire amputation bi mooy dagg sa tànk wala dagg sa loxo bi est-ce que mën na ko indi. affaire yooyu est-ce que bo amee gomme du wër ba ma ko laajee loolu pour leerlu si xam nga euh, ndax amputation bi am na si xam-xam yooyu moom lii la ma tontu ba ma ko laajee affaire amputation yi. bro bro comme kuus ni nga nekk di wax nii ah, ku ko jëlut mun la koo wax mun nga gis nii mu taxaw nii rek waaye doo xam comme ni nga gisee nit mu nelaw dëgg am na yee eh, dafa overla am sax yee soo da ngaa gis ne soo ko jëlee du nekkaa yow du nekkaat yow yow nit mun na moo ñëw wala dara xapun sa doo mun a doo mun a daw doo mun a def dara doo mun a puus da ngaa taxaw nelawuloo de sa xel bi moo dem sa xel bi dafa nekkaatul yow fu mu nekk noonu xoolal da ngaa mel ni da nga dee yee te daf day reyee tamit daf day reyee am na ku man suma kanam man mii di wax ak yow nii yàlla dimbale na ma ma doon tux kuus xam naa kuus waaye nit dee na suma kanam fii nii tamit yagut Gambie nii rek ah am na benn ndóo bu doon wana bi benn boy kuus moo ko ko kuus ba làmmiñam bi di dem gaa mu ñëw téye làmmiñ bi dafa mujj a dog kuus bi ma ko laajee loolu def ne ma couche boo ko jëlee da nga dul amee sa bopp gambien bu naan la da nga dul amee sa bopp mooy da nga doo nekk quoi dootoo nekkati yow sa bopp mu ne dootoo amati sa bopp mu ne taxaw bi di nelaw dëgg la mais nee na nelawoo sa esprit moo moo moo mooy mooy jaxasoo quoi yow dootoo fi nekkati moo tax booy di taxaw di nelaw nii ba pare nee na lu mën a xew lu happen lu happen mooy lu xew yow doo mën a def benn réaction moo waral boo xoolee mais du réagir day ubbi bëti rek taxaw xoole après bàyyiwaat gis nga boo xoolee du réagir loolu la sunu xarit bi doon ma expliquer fii sànq ah. bi ma ko laajee euh, bi ma jugee si loolu dama ko laaj ndax yaxu nit yi xam nga loolu moo gën a tiitalaate yaxu nit yi may dégg affaire de yax nit yaxu nit quoi ak cocaïne est-ce que réellement moom lañ ko defaree pour leerlu ci composant yi ba ma ko laajee loolu xam nga pour leerlu lii la ma tont bro comme nu la ko waxee rek lu raw loolu mu ngi si booy bilaay am na nit bu gaa di wax nii am na cocaïne comme boobu noonu xam nga am na yeneen ak yeneen yu ñu si def yee xam nga ñoom ñoo xam ñoom scientist yi ñoo xam wala ñoom ñu ko da defar ñoo xam mu ngi jugee si dëkk yi ñegi Sierra Leone lam day jugee xam nga ñoo ñoo ko doon defar te soo feneen fu mu dugal rek foofu lañ foofu lañ ko defare da nga gis ne yooyu nit yi la am ak yeneen ak yeneen si biir daf am cocaïne daf day am xeeti drogue yu bari la cigare yu bari ay maasi spray yoo kenn nga soo da nga gis nekk na loo xamante ne dafa over moro xam du loo xamante ne nii mën nañ koo imagine yow mi koy jël rek yaa ko mën a xam waaye comme nu gaari wax rek xaw ma ñun nit yi léegi lan moo dal da gis kusta di jël dara yow yaa ngi xam ne yow lii baaxut si yow nga ne doo ko doo ko bàyyi xam nga te da nga gis ne su nekkoon beneen drogue la sax xam nga mu ngi laa gaañ mu ngi laa rey ndànk-ndànk sa waaye. da nga gis ne dina xala jël time mun ngaa dem dunda about am na ñoo xamante ne mun nañu dunda ay yées tulen tulen tey waaye kuus laa la wax kuus bro kuus ku ko tux la wax at at waaye loo kuus next year bi da ngaa dee su la yàlla boo bëgg naa gudda next year bi da ngaa ga waaye gaaw na gaaw boo xamante ne explainal bro bilaay because dafa nekk loo xamante ne dafa over la nga tamit du nekk lépp lañ mën a wax waaye lu ma leen mën a waxaat rek mooy baaxut it's not good du loo xamante ne dafa nooma si système nit xam naa sama élément boobu noonu am na jàpp donc dama ko laajee loolu ba pare dama ko laaj euh, moom lan lay tëjee ak ban conseil la am pour jox ko xale yi bu ngeen déggee nag ngeen baal ñu si waxu Gambie nga advice mi ngi wax advice yi maa joxe advice mooy conseil advice mooy conseil yi muy joxe nee na ah di leen rappeler ne à la fin je vais vous donner la preuve dinaa leen jox preuve que mi ngi Sénégal et puis mun ngeen réagir tout tout le temps en nii nii mun ngeen réagir au 77 810 90 90 donc euh, bi ma ko paree dama ko laaj euh, yan conseil lañu mën a jox ñun jeunesse Africa ah ak euh, comme moom am na ci benn expérience bi yan conseil la ñu mën a jox quoi bi ma ko laajee loolu moom lii lama wax quoi. waaye bro ku bëgg a dem sa kanam ku bëgg a jëriñ dara ëllëg. ah doo laal kuus waaye comme li nga nekk di wax nii ndax soo si amee gaañu gaañu du wér dafa nekk di xeeli wala ak kenn xamul wax dëgg neex yàlla gisuma ko nag xam nga koos tamit xam nga xam naa gis naa yenn yi waaye loolu waaw te tamit nekk na lu garaaw loo xamante ni mun na def loolu xam nga because nu moo def bopp rek si biir rek loolu soo su génnee si yaram rek dafa war a garaaw xam nga really dangerous ñun fii Gambie soo gisee suñu doy yëpp kus rey na leen bilaay ñuy xoolal ab nañ seen daala booy bilaay mu ngi def loo xamante ne nii booy fii man ma doo ko mën a understand yeah kus xaw comme ni ko gaa di musi bala kuus kuus xaw ma ñu ko defar ñooñu luñ bëggal doomi aadama yi eh, waaye dafa ubala garaaw yee eh, xam nga na si gaay bàyyi xel bu baax a baax man kuus is really yee eh, xam naa ko gis naa ko man mii di wax nii xam nga am naa fu ma jaara moom gis naa tamit ñeneen ak ñeneen fu mu jaara ñoom so di leen adversaire rek ngeen bàyyi seen xel bu baax a baax xam nga nag fii Gambia loolu moo nekk problème ñoom xam nga ñoom dañ bëgg a miiti waaye am na yoo xamante ne jaru ko si so yéen xool leen bu baax a baax a baax a baax a baax li ngeen di def ku xam kuus nga pay ko yéen waa Sénégal laay wax bu nangu moo gën a garaaw yu ngeen di jàppa yëpp yëpp moo leen gën a garaaw amut buko ko gën a garaaw lu moo tef doomu aadama boo mun ta nag laa la wax kus moo ko gën tof te lu si gën a def te soo ko jëlee da fifteen minutes about thirty seconds boo xamante ne nii da ngaa dof yeah sa xel bi du nekkaate yow te lu nekk mun naa xapun mun ngaa def dara doo ko xam mun ngaa daw soob sa bopp si dara doo ko xam nga fa ne yaa ngi si ay génta so di la ñaaxal rek waaw ilaahi laajee loolu dañ ko laaj ndax amul lenn luñ la fàttee laaj wala loo xam ne yaa ngi ko si yokk ak boo ñu gënee mën a jox ay conseils et tout après moom lii la ñu tàggoo lii la ñu mujjee wax lii la wax quoi. waaye waaw soo da gis ne ñun Afrique ñun ñooñu noonu ñëpp ñun benn lañ ñun. Gambia Sénégal surtout saakaantuma laa ñu naa yéen ñu naa yéen sax dañoo wax ne xam nga ay ndeya baay lañ wala sax am na ñu dee dem bay wax ne xam nga Gambia si biir Sénégal la bokk soo yaa ngi fi soo lu fi mun taxapun rek dina fi because Gambia nekk na dëkk boo xamante ne nii xam nga dafa wala garaaw te loolu war nañ see wax te xam nga soxla nañ si trop wax dëgg ne yàlla xam ñi ngay ñaan yàlla rek xam nga ku jël yoon boobu noonu rek na nga ko xala na nga ko bàyyi sakatuma laa kuus kuus moom xalal suma morom yi rek laay waxal is really dangerous bu ko nga na ko jël ñu paako aside si xoolal seen yeneen ting si yoo xam yaa xam loo anything loo mënut a def kuus bu mu so su fekkee bëgg nga ñaxaat bu baax a baax rek xam nga di leen wax ngeen bàyyi bu baax a baax bilaahi boos dafa garaaw foofu wala garaaw yee parce que xam nañ ko gis nañ ko tamit waaye ñu ngi sant yàlla nag ñun xam nga bu ñu teelee xam ko xam nga ñu ku nekk nit nga loolu def loo xamante ne nii xam nga ko lu baax xam nga ko lu bon xam nga ko xam nga soo jëlee li yow di nga xam. su fekkee nit na nit bu bugg a dem nga rek benn yoon boo boo ko njëkkaat test nga xam ne lii baaxul waaye xam nga rek comme ñun mun naa ne suñ morom yi leen dëgër boo fa dëgër boo fa boo ne nii duñ dee gaaw a dégg waaye tamit xam nga naa ne adduna bi fu mu nekk nii dafa voilà garaaw xam nga gars yi lu nekk ñu ngi ko créer tam nga duñu ko dugalal pour ñu ko use xam nga fekk mu ngi yàq suñu système wala ñu bëgg ñu gaaw a nañ ci bàyyi xel couche bokkul si yooyu noonu couche moo gën a garaaw anything loo mënta laal laala wa so tamit da nga gis ne xam nga di leen rek xam nga suma morom yi comme niñ ko waxee rek ñun lépp xamante nañ suñ biir ku nekk si loo nekk xamante nga sa boppa soo tegee soo tegee sa boppa seen njëganaay di nga xam waaye waa nga advice sa boppa bu baax ku bugg a dem nag laala wa waaw li bëgg a baat suma gaay bu baax a baax a baax ah, di leen wax ne xam nga comme ni ngeen ko di defee nii rek seen li ngeen nekk di jàppale nit ñi yéen a leen ko yàlla fay leen wax xam nga kontaan nañ trop si laaj yi xam nga te tamit ñu ngi leen a tamit xam nga si seen yaatuwaay ak yooyu noonu. man mii di wax ak yéen ni dama ko jël moo tax moom mun ko xam nga wax nu mu mel ak yooyu noonu waaye ku jëlut kuus mun la ko wax lu mooy ñu ko defar yee leen waxaat rek pick up sama gars yi pick up euh, sunu xarit boobu ñu koy ñu koy sant nag Ah, sant ak ngërëm ñeel na la bu dee yaa ngi may seetaan xam nga nee woon dina ma seetaan et xam nga suñu xarit boobu Gambien rek laa koy wax Gambien bu dee yaa ngi ñuy seetaan rafetlu nañ ko ñun sénégalais yi ci conseils yi ñu jox dinañ ci jéem a bàyyi xel dinañ ci def sunu kéemtalaay kàttan ah, ci émission ba bi muy commencé ba léegi nag maa ngi leen doon wax ne dinaa leen jox preuve comme quoi am na Sénégal bi may def enquête bi. ba toll ci wër laajte laaj xam nga boo xamul da ngay laajte bi may laajte di laajte dafa am ku ma woo di ko laaj booy dafa am benn business bu tudd couche bu ñëw si réew mi nangam nangam genre affaire yooyu noonu <laughs> mu ni ma yee loolu yàgg na fii ëpp na deux ans ba mu fi duggee ak léegi booy moom rek la ñuy topp ma ne ko yan booy mu ne ma gal yi donc du coup nañ déglu vocalam euh, mooy dernier vocal yi sama sama élément yu mujj yi su mënee nekk su gënee baax gën a cool ñu dem. waaw ah, ci loolu noonu la demee de wooyu moom la topp de boobu dafa garaaw de kuus baaxul boobu mooy kuus moom mooy dofloo booy yaxu néew lañ koy defaree ak cocaïne lañ koy booleel woore ko ba mu wow dofloo booy yëpp tay maa ngi ngay prise xanaa waay si émission yi <laughs> dafa bàyyi quoi ci loolu lay tooñ la borom mbàkke noonu demee de waay mooy loolu mais affaire li mu la mën a wax moo noonu la demee quoi moom moom gaayen boo ko jëlee gaayen sa bopp bi sax mën nga koo suul si suuf quoi nga aj ko ngay nañ la suul parce di dimension am nu mu toll mais yàgg na bamba wala boog kilo wala loolu moom bu ñu jugee gàtt seen yàgg na ko waaw ah, xam nga du tey loolu la jugee bëri na fi ñuy dugg si nice te sa Gàmbi tamit jugee foofu kaw lay jugee ñëw si Gàmbi xam Afrique tout le monde muy fi quoi couche moom baaxul ci xale yi kooku day yàq. waaw suñu xarit boobu tamit bu dee mu ngi seetaan xam nga ñuy ñuy rafetlu aussi ah, intervention donc euh, du coup ñu rappeler ni xam nga mënoon ngeen réagir ci seen 60 euh, ci si numéro bi 77 810 90 90 donc du coup seen émission cas bi ñëwaat na. comme ni ma ko waxee woon au début day ñëwaat chaque jeudi chaque dimanche ñu traité ay affaires yoo xam ne ça ñu tient à cœur loo xamante ni mënuñu ko xeexee suñu loxo suñu làmmiñ la ñu amee xam nga pour xeex ko pour ngaaka yi aussi ngaaka yi nga xamante ne ñoo mel ni man yëguñ ne réew maa ngi sembere ñu teel leen xamal ni réew maa ngi sembere boo yaa ngi daw rek di dagg seen bopp are amatul ñu teel a xam euh, di rappeler aussi ne émission bi defuñu ko ngir yokk kenn defuñu ko ngir wàññi kenn dañ ko def ngir conscientiser ndaxte dañ na fagaroo gën a faju xodd xoddiku balaa ngay lakkale prévenir vaut mieux que guérir ñu nag demaloon leen xam nga un peu partout def ay recherche xam nga ñëwaloon leen ci seen émission cas bi di leen wax ni à tout moment mën ngeen réagir et puis bu ngeen amee cas bu ngeen bëgg a traité vous pouvez me l'envoyer sur 77 sur WhatsApp 77 810 90 90 donc du coup ñoo fi toogoon di wax ne nit matul nul n'est parfait dañ fee ñëwoon ngir defar boo fi dara yàqoo ngeen xam ne suñu jëmm yu yu xeebu yi ñoo ñoo yàq te jubluwaay bi du woon loolu jubluwaay bi moo doon defar ndax on peut on peut être un mauvais messager tout temps détenant le bon message te doo xam bu ñu fi defee loo xam ne dafa dëng ñoo ngi koy tuub di leen jégalu di leen xamal ne sunu matadi la bu fekkente ni waxtaan wi amoon na njariñ ñu fexe cee jël njariñ li te liñ ci mën a li ci mën a lore ñu sànni ko di leen fàttali nii yéen a ci seen télé Sénégal comme ni ko ni tur bi tur bi wax na lépp télé Sénégal ñu doon ay soldaaru Sénégal te dinañ yàgg xeex ku am sa cas boo xamante ni ça ci à cœur waxuma yàq nit parce que <laughs> rëdd wi moom boo ko yàqee yàqoo rëdd wi ki rëdd rëdd wi ngay yàq ñun nekkuñu ci yooyu ay góor yàlla lañ maanaam ay fee yuy xew ci biir kër yi te yëguñu ko te mu mën a dal ñeneen ngay bañ mu dal kooka noona yooyu fee mën nga ma ko envoyé sur 77 810 90 90 ñu traité ko ci seen télé télé Sénégal ci seen émission émission kaa bi xam nga waxtaanee ko jël si njëriñ joxante ci conseil et tout wax ni ñoo ngi leen di remercier di leen jox dig daje dimanche prochaine ci seen émission kaa bi ak seen beneen kaa bu gën a délicat merci beaucoup